xale bi ndekete ndiggam ni nii la baaxee ni mu naan rëgëj rëgëj waaye sa rëgëj rëgëj bu tax daanoo ko wane sa fan yi nag mi ngi doog a yokk ngay muuru rek taxaw naan ma boo léegi yaa ngi dëppoo ay greffage couleur yaa ngi sol yu ñu xàppati yaa ngi sol yu ñu kii ba pare naan xoola rëga rëga ay yow dangaa jóngoo bu dugg ci yooyu nag bu dugg ci ci yooyu muuraay yu métti yooyu ñëwaat fa dëgg yàlla fii nga ne moo baax. wooy waaye yow amoo woon conseiller lii mooy sa look ah ngay rek lu tax ata demaatal xool ko la vie belle